asalaamaaleykum téléspectateur yu Sunugal 24 yéen a seen émission xalima bu ñëw tey ñu fas yéene dalal ki nga xam ne moom mooy Cheikh Ahmed Tidiane nekk fii si Ndoyeen Pël ki nga xam ne si wàllum seet ak li lisaxaar lépp da koy def ki nga xam ne xam-xamam màcc na lool lool lool ba nit dañuy jóge fépp fu nekk dem di ko seet fii si Ndoyeen Pël kon dañ ko salaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay siyaar alhamdulilah laka alhamdu mawlaana ala kulli ni'matin wa min jumlatina ama qawli laka alhamdu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi di nuyu àddina yëpp di ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi sëñ bi ñu xam sa xam-xam bu baax a baax si réew mi nit ñi di doyee fépp fu ne di ñëw fi nga xam ne si Ndoyeen Pël sëñ bi loo ñu mën a wax si wàllum seet ak lisaxaar Mhm. waaw seet di xam-xam boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne laa xaaba man istaxaara wala nadima man istachaara koo xam ne seetlu nga sa mbir bëgg dugg ci say seetlu ko bëgg dugg ci voyage xool ko wala bëgg dugg ci pàkk seet ko wala bëgg dugg ci sëy seet ko yonent bi nee ne doo ma sa perte waaye képp koo xamante ne lépp loo sóobu di nga ci diisoo ak ay borom xel ak ay xarit yu baax nee ne doo ma sa rëccu ba tax na nag seet bi nga xamante ni ñu ngi koy def seetu aadala mooy seetu gisaane bi mooy ramlu nit ki ñëw moo xam li mu bëgg moo xam li mu fas ci xolam nga jël suuf si jox ko mu yéene ci te ni ko bëggee ak ni mu ko waxee ci seet bi noonu lay noonu lay génnee ci seet bi bu wéra di génnee nga wax ko bu wërsëg bu yàqu génnee nga wax ko bu tukki gu bon wala gu baax génnee nga wax ko loolu mooy seet xam-xam bi xam-xamu baatin la ci seet mooy yow xamoo yow sëriñ bi moom xamut waaye seet bi ngeen di laaj mu wax leen mooy tax nit ki sëñ bi gis na ma sëñ bi gisu la seet bi moo la gis comme docteur bi ni ngay ñëwee tey mu jël sa deret xool la mu ne la feebar sanga moo nekk ci yaram bi te nit la comme yow wala mu xool la lii moo nekk ci yaram bi soit ci rajo wala ci scanner wala ci nangam seet tamit noonu la sëñ bi bu la xoolee ni ngeen daje nga wax ko sa tur sa sant mënoo la gis waaye seet bi moom kuñ gisaane ak koo mën a doon mën nañ la wax sa mbir te li ci yéene loolu moo siy génn wasalaam bu dee nit dafa sori nag turam ak tur yaayam lay ñu xoolal ko mooy ñu nekk bitim réew daal bu ñu la bëggee seetlu. fu nit mënta nekk sa tur parce que sa tur bi nga am bu ñu la si saaga da ngay bu ñu la si defalee teraanga da nga jot kon bu ñu la si seetee dañ la siy gis wasalaam. si wàllum bayre dañu gis ne mbër yu bëri si arène bi yaa leen defal li nga xam ne moom mooy bayre te Sénégal ku jóg ne man maay borom bayre te da ngay gis ñetti personnes wër mais fi ñëwee macha allah dañ fi fekk ni dañuy ran cat ba cat si wàllum bayre noo koy liggéey ba bayre bi di saf-sàpp bayre dafa bëri ay catégorie bayre moom la ñu tuddee mooy yaram bu neex ku la xool sopp la boo waxee nit ñi déglu sa kàddu am na koo xamante ne nag am na bayre ci tur waaye amul bayre koom-koom am na koo xamante nag am na koom-koom waaye amul bayre mën na wax nit ñi soofantal ko da nga gis koo xamante ne seef de presse bu mag la boo waxee rek nit ñi xeeb ko fekk amul bayre jëlut xolu doomu aadama yi am na koo xamante ne tey bu saagoon sa saaga bi ñëpp xëy di ko waxtaanee mu neex jëpp ñu nag bayre bi ñuy defar bayre aada la ak bayre sunguf ak reen ak xas mooy càngat yi ngay gis suñ njëkk yi tey bii bu dee nit ki def fii ñëw ñu liggéey ko ba yàq ko sa noon jël sa tur ba liggéey la ba yàq la yàq sa mbir mënatoo am dara foo jublu mu tëju dangay ngay ñëw sangatu raxas yaram bi ci cat ci rab ci liggéey bu bon ci bët bu bon loolu moo ko tax a jóg nit ñëw mu ne la man de dëgg-dëgg mënatuma am dara wala sama yaram bi dafa wéradi wala rab fii lay sangu bu dee nag bayre la bëgg mooy bale na le nit ki sangu na ko diwoma taal déedéet yii ku ko sangu ñu ne bu fekkee naroo tekki dara wala naroo doon dara doo ko def ci sa yaram bi tey nit ki am na looy xas bi lekk ko dangay ngay dee poson la am na looy xas bee mu mu laal la wala mu gaañ la da ngay gaañu waaye am na loo xam bu xasee biñ def ko ci sa yaram bi fa ngay jaar ubbeeku loolu moo tax ñuy tuddee ko bayre kàkkatar loolu lañ koy defaree ci bâtiment kakkatar lépp lu mu dugg rek day jël couleur ba waaye bayre nag bu xasee ba nekk ci sa jëmm ji loo nekk rek da nga ciy am ubbeeku nit ñi dañ lay jublu da ngay am kaddu bayre bu nekkee ci yow taar sax da koy am loo sol mu rafet ci yow loolu mooy bayre kon nag bayre lu am solo la wasalaam sëñ bi ñu gis bayre boobu macha allah ku ko ku mu bëgg la foo taxawee ni ñu bëgg loo sol ni ñu est-ce que bayre boobu dina ànd ak kaaraange. déggoo bi ma laajee bayre tontu ma la ci kaaraange laa la njëkk tontu parce que mënta dem saa nga am képp ku bëgg gàtt fan sangol bayre te doo laal muslaay léeg nag nga gis nit ku dugg ci dara soit muy théâtre wala benn mbir mu siiw ci lool waaye fekk amut kaaraange lim koy yóbbee mooy wéradi gu bari ak mu am tur du am koom te bayre dëgg dafa war a ànd ak koom-koom xaalis daf la war a yomb nit ñi dañ la war a jublu nit ñi ñu lay o waaye da ngay gis exemple mbaru làmb kenn ki mën na bëri li fi def la fi def waaye kenn du la tudd loolu mooy ñàkk bayre sëñ si wàllum nopp nopp bi nga xam ne Sénégal gi yëpp ku jug ne damay nopp te ku loolu dañ mu noobal la maa xam doo gis lu baax mais yow dégg naa say nopp moom day jàpp 100 pour cent te du def 24 heures sëñ bi si wàllum nopp noo koy liggéeyee. Sénégal moom gis nga ko toog ci télé mu ne do la te du docteur. gis nga ku ne mooy mooy mooy yonent yàlla Muhammad sax te du yonent lu ne waaye nag ñu ne lépp loo xamante ne xaqiiqa la lu dëggu la dina am lu nekk ci wetam oote lu mel noonu fekk ootek fen la mos naa ko sama benn émission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def ko yónni mu nekk ki tëj nubuwatu mooy yonent bi mujjee ñëw indi alquran indi dëgg benn waa ju jóge fële ab fenkat ku ñu wax Musaylamatul Kazzab ñëw ne ci wetam oote mu ne man comme liñ jox yonent message boobu lañ ma jox oote gi demoon bi am ñeenti junne yi nit yu ko gëm te du dëgg tey déggutoo ko fen waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey xale bu ndaw sax xam na ko loo ko bañ bañ xam nga ko loo ko bañ bañ xam nga ne mooy xaritu yàlla mooy soppi yàlla bi nopp nag bu ñu la siy tontu mooy xam-xam man bi ma gën a gëm bi ma gën a dëgëral ne xam-xam am na waaw. tey ñi yaroo ci àll bi yaroo ci àll bi xam nañ dëgg-dëgg lan mooy xam-xamu baatin da gis nit diw bopp buy metti daf ko sonal te mosul dem ci docteur day ñëw rek ñu tiim ko bismillah nangam nangam wax ay baat ba bopp bi sedd guy walla bëñ walla biir boobu sax dinaa ko maye ci fin bi mocc mocc boobu nga gis nit dem ci àll bi débéy ba sàgg rek jaan laal ko du dem docteur ay nit ñooy taxaw lugg ko loolu ñàkk ngeen xam ko ñu lugg la ba dangar gi génn yaa ngi dégg wala jiit laal la walla wala walla wala leneen waaye noob nag mooy koo xam ne da nga kaa bëgg a takk comme soxna nga dem ba ci moom wax ko ne dama laa bëgg mu ne la man de wax dëgg yàlla bëgguma la te mbëggeel moom mbëggeel la rek wala bu nekk sa doomu nijaay wala sa doomu bàjjen nga bëgg sëq ak moom ci wàllu sëy mais bëggu la te yow bëgg nga ko nga ñëw nga noob ko noob boobu nag day mel ni comme ni ngay wëlbatee xol miir bi ni muy weexee nga jël lu ñuul pentiraat ku mu ñuul loolu mooy loolu mooy loolu mooy nopp parce que nopp buñ buñ buñ takkee nit ki takkuñ tànkam takkuñ bëtam takkuñ loxom buumu xol bi lañuy jàpp moo tax jat yi ñuy wax ne takk comme takk bii tey nga wax diw bismillahi saalaali muhammad waalaali muhammad yaa ngi dégg bu yàlla yeewee juróom-ñaari ponkalu jinne buñ nangoo nangu nañ suñ bañee nangu nañu man diw suma ma yeewee juróom-ñaari ponkalu jinne suñ nangoo nangu nañ suñ bañee nangu nañu kon nag jàppal ma xolu diw mu méngoo xolu diw rek nga takk waaw boo takkee yow kooku noonu bañoon la démb mooy bëggaat tey léeg kilifa taxaw ci télé bañ dara suuf mu nangu ko yaa quelque chose ñaar moo koy def ñu toog ci der ci kurus wulli sa tur bi tàngal allo xanjar bi mu tàng dóor la ba ba nga ba changé xalaat moo tax wax waxeet yi ngay gis yëpp baatin la wallu baatin léegi nag nopp boobu nag nga gis diw dee pourtant bi muy labat kii bugg ko woon waaye tey ànd nañ bi am nañ njaboot wala nga dem fenn déposé ñu bañ nga am turu directeur bi ñu nopp ko waaw nopp nag damay wax ne du métti yëpp mën nga sangu dara ci alquran 40 jours mu jàpp waaye sunguf boo sangoo ñetti fan di nga gis résultat bi nopp tamit bés bu ñu la ko defalee 24 heures comme nii heure bi ñu ko takk nii boo yeewoo di nga gis réaction ci moom bu amul rek noob bi baaxul waaw xam nga tey téléphone téléphone bu fekkee ne yaa ngi wax nit ki mu ne la allo allo réseau bi baaxul waaye réseau bi su baaxee ba ngay wax mu tontu mu wax nga tontu loolu mooy noob. noob nag mooy xam-xam bi ma gën a yéem ci xam-xam yëpp xam-xam bi ma gën a dëggal ndaxte xam-xam bu jafe la boo xam ne tey bu ñu doon lim ñi ko ñi ko mun ci réew mi ñu néew la ñuy doon ndaxte mag ñi dañ ko codé woon xam nga lu tax day yomb trop nga bëgg nit rek noob ko takk moo taxoon mag ñi wóoluwu ñoon ñu bari si xale ñun nag yàlla moo ñu samay may sens mag ñi baaxee ñu ko ñu siy dimbali nit ñi wasalaam. si wàllum tukki xale yi nga xam ne. ma gën a bëgg waxtaanee ko mu gën a am solo. mooy kaaraange kaaraange kaaraange nag xam nga baat bi nit ñi xamuñ ko tey loo gis rek am na kaaraange même pistolet sax am na gilet yooyu takk buñ la dóoree bal mën na la bañ a rey n'est-ce am na loolu du baatin loolu kay euh, zahir la waaw yaakaar naa ñu bëri dañuy takk gilet de bal xawma lañ koy wax mais loolu parce que loolu da lay aar ci bal am na koo xamante ne dafa am lum naan. boo ko jamee paaka bu ñëw du dugg boo ko goree jaasi du dugg loolu mooy tul loolu kaaraange la ci weñ am na koo xamante ne tey dafa aaru ci pour fekkee histoire histoire bu mën a xew dañ ko koy nettali waaye doo ko fekkee te loolu lu yomb ku ñëw dama la koy may sax mooy doo fekkee histoire waaye ñun pël yi loolu dañ koy bañ ndaxte mbir mën na xew sa kër da ngay dem mu am wala mu am ba pare nga doog a ñëw waaye kaaraange nag mooy tey am na lu ñuy tooke ci sa yaram bi nga sangoo ko ci barab bii boo ko sangoo pare képp ku solati dàll pour gàllankoor la yàlla dina la woon jaxaran ne diw mu ngi woon ci kaw te dina xam ne laal na ponkal te ay sangat kese la boo xasee ba sangoo ko jeex na képp ku jógati jox sëriñ sa tur mu ne ko defal ma aadama juuf doomu pend juuf nangam jeex jàmm jeex na parce que sa tur bi moom lañu moom la ñu baatin yow balaa noon di jóg jóg nga moo tax ñu ne sangu leen balaa ñu leen di sang takk leen balaa ñu leen di takk dugal ci biir bàmmeel kaaraange nag moo gën bayre moo gën noob moo gën lu ne ndaxte boo xasee bi am kaaraange rab dootula sonal benn làmmin dootula sonal bët dootu la sonal sëriñ lu aay aay ak lum mu mën lu bon mënatul ci yow dara boo ñàkkee fulla ñàkk fayda nag benn ku jóg yàq la ku jóg gàllankoor la loolu yow la concerné doo doo doo doo yaram bu naka yaram bi doo tàggalikook ndax sa poroblème boobu jeex na doo tàggalikook ay coow balaa caat nag keroog bi ngay am jàmm nga jóg ndànk dem uti ñaan fii nag ñu nekk nii loolu rek moo waral barab bi li nga waroon dem uti fële dem loolu yëpp daje na fi waaw tooguñu pour def publicité wala wane suñ bopp dañ koy wone parce que lu baax dañ koy wone am na koo xamante ni yaa ngi dëkk ak moom man samay dëkkandoo ñu ngi ñëw ci man ñi ñi jege ñu ngi ñëw ci man ay nit ñu ngi jóge fële di ñëw ci man mais loolu sant yàlla la ndama wuma ci te fii rusuma ku ma bokkal ndey ak baay fekk ma fi rusuma sama xarit bu ma jàngandool fekk ma fi parce que bés boo fi ñëwee buñ dajawaatee dama lay xool ci bët jëfeewuma sama pexe wala sama yëfu bopp fii mag ñi ñoo ñu fi teg waaw ah, kuy sa waajur Cheikh Nourou Ba dundoon na téeméeri at yàlla may ko lool ci ñaan yàlla ak ci kurus du ku ñuy laajteeti ci réew mi tey ñun doomam rus nañu nekk ci dara mu dem tappale wala di naxante wala di dara moo tax lépp lu ñuy jëflanteeg nit tey nekk lu leer waaw du ma du ma oo nit ñëwal ci man léeg-léeg sax nit nga war ma jox dara duma la mos a oo parce que xam naa lu mu yàgg-yàgg di nga ñëwaat wasalaam loolu moo nekkoon waxtaan bi jarul mooy gudd. waaw sëñ balaa ñuy tëj dama bëgg nga waxtaanee si wàllum rab ak ka ak rab ak li nga xam ne tey moom mooy samp. ci loolu tudd nga lu doy waar. ndax xam nga ne rab moo gën a bon sa agresseur bu jël jaasi ak ay pistolet topp la mhm. agresseur bu la toppee mën nga daw mucc ci moom mën nga làqu ci prison mu mu mucc ci moom mën nga jël armée mais rab day sànq nit rab day tas sëy rab day néewal kàttanu góor di wat sa awra bi mu tuutiwaat rab day tere jigéen am doom rab day yóbbu xel nga dof doppaaral ba summi sa yére yi rab day tax ngay gént di tëdd doo stable ngay gënt gént yu bon rab day tax nga nekk fenn jékki-jékki nit ñëpp dañ la bañ kenn bugg la parce que rab mooy def noonu wala jigéen xëy rek mere jëkkëram bala bëgg ñaan baat walla góor sànni këram wala def feebar ci sa yaram bi yàlla nañ ci yàlla musal moo tax rab nag bokk na ci kaaraange ñuy defar fii lu lay aar ci rab boo fi duggee nag sangu ba pare mooy ngeeraan yi boo génnee rab bi dootul a jegeete te nag jafe na waaye jafewut ndaxte am na yuy nekk ci sa yaram bi rab dootu la jegeeti rab dalay daw comme ni ngay dawee safara bu tàkk waaw yooyu moom sangu rek la am na lu ñuy takk am na ndomb téere bu ñuy defar bu ndaw pour xale yi jigéen ñi rab bañ leen yàqal waaye am na tamit fii kum jàpp nag ba sonal la ba nga xamatoo foo jëm nga ñëw fi sangu mu bàyyi la wasalaam moo tax rab te amut kenn ku ci mucc kenn ku ne am nga rab ñii dañuy xeex bi rab bi sonalu leen wala ñuy fexe ba tàggali ko ak moom waaye ku ne am nga ko yi muy gën a def nag mooy yàq sa diggante ak doomu aadama yi fay sa biddiw wéradi loola dëddalal ak li nga gën a bëgg wasalaam. si wàllum tukki sëñ bi wàllum visa ak ñaan yi ngay def xale yi nga xam ne tey ñooy dem si géej gi xanaa xamuñu la parce que dégg naa passeport boo téye boo ko bàyyee bu demee ambassade gars yi tamponel ko. tukki niñ ciy ñaanee saan góor gi waxoon na ma ne ñaan bu n boo nee diw di nga gañe match bi na fekk match bi am. waaw nit ñi buñ naxante dañuy waxante dëgg nit ki day dem am rendez-vous ambassade xam bés bi muy dem ñëw fii indi ñetti picc yu ndaw yooyu di naaw indi passeport bi am loo def ci passeport bi càngat bi nga koy defaral mu sangoo koy pare mu bàyyi picc yi bu naaw bu naawee moom man xam naa ne yàlla dogal na nga dem bu naawut nag nga ñëwaat ñu defaat ko ba keroog muy naaw loolu loolu la ñaane si tukki am na nag wali yàlla yàlla may na xool ñu ne la di nga tukki at nangam loolu ñun yegguñ foofu ñun tegtal lañ yore ci loolu boo ko defee ci visa bi kii ci passeport bi nga defal ko mu sangu picc yi bu bu ko sànnilee boppam mu naaw billaahi day dem waaye bu naawut nag amaana ñu defaat ko defaat ko mën na bañ naaw sax mu tukki waaye ñun li ñu xam ak li ñu tegtal yi ñu yore loolu la waaw nit nag bu nekkee Europe papier jafe ko am na càngat bu ñuy defar bu ñuy booleeg suufu réew moomu noonu mu ne maa ngi ñaan yàlla bépp teraanga buy nit di am ci réew mi yàlla jox ma ko mu sang ko di nga gis yoon ubbeeku ci wàllu kayit yooyu moo tax diw moo ko ñaanal ma am papier loolu rek la wasalaam. Mhm. ñu ñëw si actualité li nga xam ne moom mooy combat bi ki nga xam ne moom mooy roi des arènes muy Modou Lo nga xam dafay nekk di fi ñëw nga koy bokk si ñu koy ñaanal couronne bi mu teg ko en ak ki nga xam ne moom mooy doomu Diamaguen muy Siteu ñëpp jug ne Modou Lo moom mooy favori combat boobu sëñ bi doon ci mën a baaxee rek tuuti. dëgg la yooyu xam nga tey fii ñu toog nii maa ngi jublu nii waaye li nekk sama gannaaw xaw ma ko. su ma ko bëggee xam nii lay def ma xam lan waaye seet nag làmb mën nga jóg tey rek nga ne coow li bëri na diggante Modou Lo ak Siteu bëgg naa xam kuy daan rek nga xool ko gis ne Modou Lo mooy daan nga wax nit ñëpp Modou Lo mooy daan Siteu dem feneen ñu xoolal ko ñu ne Modou Lo dalay daan waaye defal sarax nangam moo tax sëriñ yu bari di fen ku bañ a fen bul wax agum lu ñëwagul ndaxte yàlla dafa fiir ci loolu malaaka yi keroog bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam di judd dañ doon yëg ko asmaan di ut ay information ñu leen di senni ay doj doju safara nga wax nit ki billaahi yay daan mu dem ci keneen mu wax ko sarax ma ne moo loo tëddu rek di nelaw sitt xaaru rek di nelaw te nag nga nga jékki-jékki wax di way daan nga am gàcc ci say digg léegi nag man sànq jox naa la exemple boo bëggee xam ne nag si gannaaw da ngay gëstu waaye nag da ngay xool nga xam ne bés bii diw amul fu muy jaar bi mu torox ci bés boobu day am ndam waaye man personne man su may ñaanal Modou Lo lay ñaanal su may far moom lay faral sama xarit la sama wëllëre la depuis lu yàgg waaw waaye nag suñu position tey tey tey tey tey parce que li ñu nekk nii tey bu doon làmb ni mu nekkee roi de arènes amaana bu ñu nekkut roi <laughs> amoon nañ ci noonu leneen ndaxte ñun amuñ benn mécc bu dul ñaan yàlla waaw leneen lu ñuy def sax dañ koy def nii rek mbéy meeg yooyu waaye lii la ñuy def depuis ay at fukki at ak yu teg ba incha allah noonu rek la def te képp ku ñu xamoon fukki at ba ñaar fukki at noonu noonu lay doy léegi nag combat boobu waxee ci nitee ak waxee parce que ñëpp suñuy njaboot lañ Siteu ñu ko bari ñu ko xam suñuy nit lañ. ñun fii ñëpp ay ñëw si ñun kon nag dañuy doxal maandu wax wax joo xamante ne mën nañ ko waxaat suba yal na yàlla defal leen jàmm ñoom ñëpp ku sol dàllam nag ñëw ba fii nga gis ne diw ñëw na fi boobaa nag engagement dina am ñun noonu la ñuy doxee waaye luñ ñu boolewut suñu yoon nekku ci wasalaam waaye maa ngi ñaanal yàlla Modou loo mu daan maa ngi ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm ndaxte nit ku baax la Modou loo nit ku baax la waaw koo xamante ne xam naa ko baax waaye jikko bu rafet la yore kon nit nag bu nekkee sa xarit bu bés amee nag da ngay wane ne da ngay bañ a ragal péete wasalaam. sëñ bi xaamu tëjee benn mooy wàllum accident yi nga xam ne am na si yoon bi ak ndaw yi ñàkk seen bakkan tamit si yoon bi réew mi tàng na loolu ku jug naan lii mooy saraxu réew mi lii mooy saraxu réew tey ban kaaraan nga ñu mun a jox si wàllum accident yooyu. accident nag ndeysaan am na benn secret képp koo xamante ne jàng nga alxuraan balaa ngay dugg ci oto boo ko jubee nii nga jàng ñetti ayatal kursi yu booy toog ci chaise bi ngay toog nga bind ci baduhun nga toog ci ko am nga jàngal li ilaa fi qurayshin rihlata sitaai wa sayf falyabudu rabba haza al bayt allazi atamahum min juuin wa amanahum wa amanahum wa amanahum ñetti yoon min xawfin nga julli ci bi ñu ne oto bi di nga ci mucc si jàmm di dem dinga nga yegg si jàmm benn la waaye beneen tegtal bi nag loo xam ne mbiru aada la pour yàlla musal la ci accident dangay ñëw ci fi ñuy toggee doom doom di koy jël nga jënd perkaal nga jël benn këriñ nga jël doom bi def ko ci perekaal bi nga jël këriñ bi def ci nga jël def ko ci pere perekaal bi perekaal boobu nga jël def ko fas am na mooy dàll carax loolu noonu ñuy kiyee bi ci suuf patt bi nga dagg ci def ci nga takk ko ci sa ndigg booy tukki rek waaye doo mos a am jafe-jafe ci wàllu loolu ay tegtalu aada te yu wér la waaw loolu mooy kii bi jullit boo jógee booy dem da ngay muslu waaye dem rek aloo maa ngi ni départ yegg naa oto bi toll fii te xamoo da ngay ci yàlla seytaane boo toogee ci oto nga léemu yàlla defal la jàmm ndaxte accident moom sëriñ daf koy def président daf koy def ku ne daf koy def waaye nag yàlla nag ci moom la ñuy ak def tegtal yi sëñ bi waxtu bi daal na lay xoj yan kàddu ngay tàggatu ak yan ngay dénkaane. jàmm ci réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na yàlla def jàmm yàlla yàlla def jàmm wasalaam.